dañu am faru rab góor ñi naa am dañu am coro rab am na ñoo xam ne dañ naa jinne moo leen sàdd am na ci ñoo xam ne dañu am fa ñu nekk sax dañu ko mujj bàyyi ñëw pour ñu am nañu jóge ba Amérique partout di ñëw ci ah, ndax lool mais en général lépp ci finalité ba ay faru rab lay doon ak coro rab nag dangay ngay bari loo yaakaar muy tas ngay am mu yàqu ngay gaaw a mer bu dee góor jigéen joo waxal mbir ma yàqu bu dee jigéen góor gu wax ak yow mbir mu du aw yoon moo demee bëgg a takk mbir ma tas boole ko bopp yooyu metti boole ko jaxasoo foo toll di wax lu àndul léeg-léeg góor ñuy wax ñaari bat ñëw nga ne ko may ma sama bopp wala waa ji ñëw ñaari bat ñëw waa ji dem yoonam tënk baa nga lu gën a gàtt. maanaam boo gisee ñu jàpp jigéen ñi parce que jigéen ñi dañoo moom li mu gën a bëgg deret li ëpp jigéen ñi am feebaru parce que ñoom dañuy génne deret man dama ne woon man dootuma si dootuma am soxna. man dama ne dootuma am sama première soxna fase euh, séparé woon nañu yàlla longtemps dama ne woon sax dootuma sëy ku ma nekkal quelque temps su ma su ma la soree dinaa la xalaat mais su ma lay jege mbaa ma dëgg sa baat sama xol commencé fudd jeune ne peux plus su ma ko gisee sama xol bi day mel ni dañ ci sotti essence taal ko mënatuma ko supporter su su ma ko soree dinaa xalaat moom dinaa ko xalaat ma ne pourtant kii am na ay qualité yu baax kii dëgal na ma ki dama koy harceler muy muñ ma ne naa jéem a nekk ak moom samay mbokk ne ma kii muñal ko nit ku baax la ak sa si sa la mais su may ñëw kër ga rek su may dégg baat bi mbaa ma gis ko rek mu mel ni sama àdduna day waaj a tukki alors de telle sa que dama daan xaar bi ñu tëdd ay une heure du matin deux heures du matin ma doog a ñibbisi ci kër gi ci fin bi avant ñu divorcé noonu laa doon def ndax ñàkk ko mun a supporter. dem naa ci ñu ci ñu bari euh, nee nañ ma gaa rab la dem naa fii ba Mauritanie ci benn fajkat foofu dem naa ci xam yi fu nekk dem naa fa fu nekk fu nekk dem naa fa mais damay tane damay tane trois jours affaire yi dellusi si nag bi may dem mu ne ma. naa la jox ay indication yoo xam ne soo ko respecté incha allah dootoo am problème yi ma ne ko lan la mu ne mu ne ma mer ak tiit ma ne ko nag mer xëy na mun naa góorgóorlu ak sama xol di ko jéem a nag mais tiit mënuma ko contrôler que benn bruit day dal rek ma ma tiit te mënuma ko contrôler mën a ma mu jox ma ay verset coranique yoo xam ne dama koy zikr ma tànk yaa ngi koy zikr incha allah mais dama koy gis ba damay sentir sama xol dafay neex day neex ba damay dox jëkki-jëkki ma a ne alhamdulilah j'ai vaincu Satan. feebar bi yàgg na ci man yàgg na ci man lool lool lool lool ni ma ko sentir mooy damay toog di am ay naqar sama xol di naqari may toog ku nga xam waroon naa jubóog moom sax may am ak moom lu nga xam ne lu naqari daal sama digganteeg sama jëkkër tamit xam nga di am ay différent toujours ma am ak moom ay problème man sëy naa ñetti yoon ñetti yoon ci ay divorce yu nga xam ne yu ñàkk fayda waaw ci laa sentir ne man daal xam naa ne ça ne va lii am na lu ko causé daal. dafa ñëw ba ci sama biir néegu sëy di ma indil ay problème yu nga xam ne nii duma ma xam lan la xam nga sama diggante sama jëkkër xam nga damay toog di am ci moom lu ma naqari léeg sax bu ma laalee day mel ni sama yaram bi dafay daw damay def nii di daw noonu daal di ko daw noonu xam nga ba mu naan waaye lan la ma ko man xaw ma lan la wala bu may caresser sax xam nga. yëfi du neex daal di naqari ci man ma xam ne lii daal vraiment du neen daal xam nga du neen daal dama koy gis bu ma tëddee di am mel ni damay sëy keneen ku sama jëkkër carrément dama koy gis ma ku ma xam la may dikke wala mu dikke mais nit ku nga xam ne nii yenn saa yi duma ko xam sax mais nit la may dikke daal góor léeg-léeg mu doon ku màgget ñu demee noonu daal vraiment man xam naa ne dama koy kii bay yëg ni daal vraiment maa ngi kii daal du ma ci mën dara vraiment ma am moom rapport comme ni ma koy kii yeeg daal ba léeg-léeg damay toog tamit di dégg ay wasifa waaw loolu moom dinaa koy dégg. bu jaaxal ma lool daal jaaxal ma lool. damay nekk sama kër ba mu yàgg mu mel ni dafa am lu may traversé xam nga ma ne waaw loolu lan la noonu daal di tiit nag daal di tudd yàlla. daan naa dem di sangutu sangat nan ma wax ma ni yooyu nga yore. Ah, ma ànd faak sama doom bu jigéen bu nga xam fii la nu mujje elle a vingt neuf ans presque ci la sëy vraiment doon na ko nga xam ne nii ay góor ñi dañ ko daan sollicité ñëw di wax waxi mariage mais moom dafay bañ war na yàlla dama fi ñëw xanaa bu amee weer keroog ba mu fi ñëw ci oustaz Faye ñett la noon xale yi mais seen sëy yi nii la tegloo